waa bi waa koñ bi ak bokk yeeg dëkkandoo yi sa diggante ak moom donc nii nga def su la neexee recevoir ko ci saal bi waaye nii nga ko defal mu nungu ko dalay wan ni la dama laa bëgg sagal ci say bokk dama laa bëgg a sigil ci sab koñ ndax it dañ lay tudd di ko tudd lii nag nekk loo xam si lu rafet la monsieur le maire yaa mën a sigil sëg nit yaa mën a sagal sëg nit ca doo ca sagu yaa mën a siggil sa nit ca doo sëgg sa nit xamul sa itte sa nit xamul sa ñàkk ca loola sa xamul sa ndax lépp lum yaakaar lépp loo yaakaar ni boo ko defee dina ca sagu di ko ko defal nga ànd ak nag Serigne Sidi Mbakke moom Serigne Cheikhouna Mbakke moom Cheikh Abdoulaat di ku ñàkk ki sa diggante ak moom. nga téye ko tam nag jëmmi sëñ Abdou di jiital nuyoo boobu nag ci njabootu sëriñ Touba gi nga xam ne si ñoo toog di nuyu nag monsieur le maire Abdou Ka xam nga li nga xam ne si nii moo tax bim ñëwee ma ne nan dem ci baas bi nan dem ci baas bi ñu ñu ñu waxtaanee fi ci baas bi mooy tey jii ñii fi ñëw ñëpp samay mbokk lan muy bis ci man ñëpp di samay mbokk sama mbokk yi nga xam ne si ñoom laa am mbokki kër ndey ak mbokki kër baay ak mbokki xarit ak mbokki deret ñëpp ñu ngi ni toog sama rakk yi ma bokk ak aboo njaay ngi ni toog ak baay gelas njaay ñu bokk benn baay kon bu jëmm jii dikkee di ab Lahad Ka yàlla dogal muy premier magistrat de la ville yor dëkk bi yorgo xam ne si nii moom ci boppam dinaa ci ñëw tuuti waaye li ma ñor rek ci ma war koo wax mooy suñ diggante yi ñiy toog ci baas ñëpp xam ngeen ko ci ab jotaay tamit yombut comme que jotaay yombut ca samay nit ñëpp dikk nañ toog mu ñëw war na maa wax suñ diggante leeral ko yi ñi ngeen xam yàlla dogal tamit ñun ñii ñu bokk liggéey ndax fam nekk ba ko sëriñ bi dénkee liggéey bi ca Serigne Sidi Mokhtar Mbacke ca it nag loolu Serigne Sidi Mokhtar da ko feddale waaye jamonoy Serigne Saliou ba léegi musta génn ci conseil bi conseil boobu ba nga xam ne si dajale na nit ñëpp ñu toog moom moo yoroon commission de finance ca jamonoy Serigne Saliou doon ko doxal waaw ba jamonoy Serigne El Hadj Bara ba Serigne Sidi Mokhtar dikk ne ko yaa doy ci maire bi ci bopp bi kon jiital naa la ci. mu doon mu doon commune rurale ñu dox ab diggante tuuti acte trois dikk mu dem maire doon maire dëkk bi waaye moom daa am loo xam ne si ni ñun ñii xam ne si ñu ànd moom di liggéey ak moom lépp daa am loo xam ne ak ñàkk xam na ci dëkk bi ndax waat naa ko ci yàlla ca moom mii xam na ko ñi ko jege ñëpp xam nañ ko bi ko sëriñ Sidi Muxtaar di jox maire bi ab ab marché la bàyyi boo xam ne si nii 3 milliards yi tegal na mu ne leen aw ma jotu tàmbali marché bii ndax dañ maa jox commune mairie bu Touba ca mënuma ko boole ak liggéeyu marché bii barke Serigne Touba marché ma am marché la bàyyi ne leen mënutuma ko boole toppatoo gi kon kooku jàpp naa ne am na fu mu teg Serigne bi ca baat bii muy wax man mii ko jege doy naa ko seere ca ñii ñëpp xam na ne du ma nit du ma caaxaan. lii muy wax ne maire bi xàmmewuma ko ak daara ku laxasaayu nekk ci daara ja loolu mooy dëgg ci moom lii ma leen ci seeral na ngeen war koo seere kenn ku ci nekk jàpp ko ci xam ko mooy moom mii nga xam ne si ni mooy maire bi ñun ñëpp ay ouvrier bari nañ fii boromi magasin bari nañ fii amul kenn ku ma sa yor magasin digg ba mu fi nekkee moom mii ak léegi kun ma sa tëj sa place ne la da ngaa fay potante moo tax ñu tëj ko amul kenn ku mas a woo commissariat ne ko da ngaa tëju ku ku ndikk ci ñoom da ngay maslaa di maslaa di maslaa ba fa sa doole yam nga fay ca mënoon naa mënoon naa jëloo yat gàll ca ndax ja yàggul woon ca ginnaaw danoo jëloonu yat gàll ca yàggul woon dara ca ginnaaw danoo jëloonu yat gàll ca ñëpp di ko fay ba kuy jaay caaf sax daa nga daan fay loolu mooy dëgg il faut que ñu koy waxante kuy jaay caaf sax da daan fay man nag ci conseil bi laa bokk kon bu ndikkee ñuy maslaa nga xam ne si di nga gis ku yor matériel bu mat un million ca du fay dara kon dëkk bi dëkk bi yërmande la yërmande nag wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin moom lañ yónnee yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ Tuubaa ti moom la yore woon jaam ñëpp moom dong ca lay mën a tàbbi kon li nga xam ne si nii rek moom laa bëgg leeral su ci moom mii ak lii muy liggéey dëkk bii nga xam ne si ci la nekk mu fiy liggéey kun ci joxoon maire bi ci yéen ñii fa ngay jàpp ne fa ngay wutee xaalis fi ngay gën a sa xalaat di ci gën a jàpp ne fa ngay génnee ay milliards mooy marché Ocass bu Touba bii ca yërmande rek la doxalee ñoom marché Ocass bi mosut am année bu mu génnee 60 millions ci marché Ocass bu Touba bii ci mbooloo laa toog caméra baa ngi nii mosut am année bu marché bi yëpp ñu boole ko mu génnee 300 mille 300 euh, millions 60 euh, millions ca ñi fi nekk ci centre commercial benn bu ci nekk dong bu doon fay 100000 francs képp. bitig yi di fay mën na nañoo génnee milliard kon yërmande képp la yoree dëkk bi loolu képp la yore dëkk bi moom mii nag yorut suuf képp ku jaay pàkk ci ñun ñii ñun ñëpp ay jaaykat lan waaye ku yëpp jaay pàkk doonee nan di seet Abdou Lahad Ka mu defoon ak de vente bi xam ngeen li ngeen ci fay ci xam ngeen dugg ci posam moom mii kon loolu bokk ci la maire bi yor képp kuy daggub robinet ci yéen ñii xam ngeen fa ngeen dem joxe fa vingt-cinq mille francs te du dugg ci poosam de ceeb bu pompe yi yàqoo ñu ñu wax ko mu jënd ko kuy daggub robinet xam nga fa ngay daggee jib robinet waaye 25000 ngay fay te du dugg ci poosam du dugg ci mairie ba am na kuréel gu ko yor ñoo ko yor di ko doxal te it loolu nga xam ne si nii moo am suuf mairie bu yorul suuf yorutum ndox ah ca. emploi ñi nga dikkoon fekk la fa 60 personnes nga fekkoon employé nga yóbbu ko ba juróom benn téeméeri nit ak juróom fukk waa ji jàmbaar nga te mosu génn ñi ñi employé di juróom benn téeméeri juróom benn fukk kenn génn di mars mosu ko gis ne dañ noo fayut fu la cinq jotee ñoom ñëpp ñu fay leen ñi xam na li may wax kon jàmbaar la maire bii nag soxlaa soxlawut soxla soxlawu ci dara ca lima xam ca xam ko mooy képp ku ko am xamul numéro Baye Modou xamul numéro keneen ku ko woo mu jël la mën naa xat nag wàcc téléphone bi nii waaye amul numéro bi laa jox kii amul numéro bi laa jox kii loolu yombul ci kilifa yi de numéro bi laa jox kii ak numéro bi laa amul ci tey nag li wér ci wóor mooy buñ ko dénkee tamit war nañ ko dénk ndax Touba nag neex na ñun ñëpp ñu maasee dikk doon sëti sëñ Touba dikk fi doon taalibe sëñ Touba waaye nag ah ñoo bokk dëkk bi de waaye nag ñoom ñii tamit bin dikkee Touba daa dikk duggaat seen suuf su maam ndax dëkk yaañka gi nga xam ne si ne fa la maamam sanc magee na Touba juróom benn téeméeri at seenu dëkk magee na Touba juróom benn téeméeri at Touba di ko dugg ci ca it lu fa soxla ci suuf mu joxe ko kon li man lépp mi ngi koy def kem lay kattanam lii ñuy wax ci biir Touba bari na ñu nekk ci baas bii bari na ñu nekk ci dëkk bii élection yi jàll li coow li bari bari ñu naan bulletin balaa nangam ak nangam li ma mën a wàtt yàlla mooy ñu baree baree baree bari bu ñu wotee bulletin balaa bi moom lañ jàpp ne mooy bi waaw ca yéen nag Serigne Saliou ca jamonoom daa doon tedd liste jiite liste ba ci liste PDS ngir murid yi mën ko wote benn bulletin blanc boo xam ne si nit ñi ñu ngi koy wote du ma ne amul de xanaa koo xam ne si dafa mere Abdou Lahad Ka ba wote ko loolu mën naa nekk waaye ñu ci ëpp ci nit ñi ñàkk xamal lañ ci dugal ñu dug ñu ñu ñu wote ko jàpp ne balaa bi mooy ndigalu sëriñ bi ndax mu ngi nii rek waat na ko ci yàlla laalu waxal si amut lu muy bañalu dëkk bi nan xam ne tëli bu yàqu am maire yoru ko xam ne assainissement am maire yoru muy ay taataa yooyu bokk ci compétence su maire bu Macky Sall toogoon fii tamit xam nga ne loolu rek mooy moom la ni wax bokk ci tali bu yàqu bokk ci assainissement maire yoru ko waaw nan xàmmee li maire bi war a war a def ak li mu warut a def ca it na coono yi mu ëpp doole loolu fop social am bii li ci def ci poosam bii ah kenn xamul nu mu kon loolu doy na sëkk ci nit war koo xam nit nag boo dee ànd ak moom mat mat ko seere la muy def lépp nga koy xam bu mbooloo mi te war nga caa seeral lu leer nañ ba mbooloo mi xam ne kii yii coono moom lay toog tàqali toggandoo loolu mooy li xam ne si ni moom laa waxoon naa ko wax. di di nuyu ci turu maire Cheikh Abdou koy gërëm bu baax ci tànk yi mu ñëwee ci bisu Baye di bi te di ko ci masu coono bu baax te xam ne ak wayaxoon rek ak dalam. ak bëgg doomu aadama ak bëgg dëkk bi loolu rek a tax mu def ko Cheikh ni ñu ngi lay nuyu di lay tatagal fii bu baax a baax tànk yi nga def ak nii nga jógee tuutiwul ci ñun ñun ñi bokk moo du nga fekk si ñun euh, tuutiwul ci ñun te xàmme nañ ko bu baax yow nag noonu ko Baye Modou waxee rek ñun moom lu mu mën di doon lu mu mën di doon ndegulu Sëñ Tuubaa rek danoo gën a lépp. bu fekkoon ne gën a yées ci dëkk bi sëriñ bi da ko xool ba tànn ko dañuy jàpp ne ñun lan ñun ñoo jàpp ne dafa yées ci suñuy bët waaye moo gën ci lu yàlla bind ndax li ko sëñ bi tànn kon ñun li mën a xam rek mooy ndigalu sëñ bi ah, ñiy wax ñëpp nag noonu ko seex Bass Abdoul Khadir waxee démb rek yoon wi moom moo baaxoo noonu lu ne danañ ko dégg waaye nag sëriñ bi moo ëpp doole ñëpp da dégg sax koy woote ci rajo bi bay wax na ñun ñi danoo bokk ci dëkk bi nag moo tax ñuy wax lii waaye du ñàkk taalibe nangam nangam waaye dëkk bi moom bokk ci amul ndax koo xam ne danga ne ci dëkk bi nga bokk te bis boo defoon lu méngoo wut ak dëkk bi tey tey tey doo fanaan ci dëkk bi kon amu amul part ci dëkk bi moom kon ki nga xam ne moom moom dëkkam tax xool lu ko neex mu di ko dogal nan topp ci loolu di koy dox ñun moom xooluñu looy def xawul ñu looy bàyyi ñu daal ndégalu sëriñ na xam te jaay nañ sunu lépp jox ko sëñ Tuubaa fii moom ku mu mën doon mbokkum sëñ Tuubaa mu mën di doon ak lu mën di doon ci sëñ bi rek sëñ bi doo nga fi nekk moo tax it kenn ku nekk ñu di la màggal ak lu nekk di am daraja joo fi gisit sëriñ Tuubaa rek cër boo fi gisit sëriñ Tuubaa rek kon nag sëriñ moom moom bu waxee ba noppi kenn mu ci wax wax ba noppi nag noonu ko ba sa waxee nag sëñ bi wax ba noppi nag ñu naan waaye man ba may nekk ba may ba may nekk ci école bi di jàng daanaa dégg ñu di nu tere xarfu ist xarfu xarfu wala kenn dan daan wax wala kenn xarfu istidraak la wala kenn mooy boo doon wax fii ba déwén nga ne waaye nag la nga waxoon lépp yàqu na <laughs> kon amatoo kóolute ci li <laughs> ca la ngay wax ah, kon nag ñun nag waxu sëñ bi moom duñ ci indi waaye duñ ci indi déedéet jëfee rek yàlla xam ne ne bu laajoon suñu bakkan sax ñu def boo fi doon nekk fii ba ila yawmil bans tamit ndigalul sëñ bi yàlla xam ne ne buñ la gisee duñ la jàppee sax monsieur le maire waaye baatub sëñ bi rek lañ lay jàppee. nuyu Baye Modou bi di ko tatagal te di ko jox nuyu monsieur le maire ndax lu ma xam ci seen diggante. xam naa dinaa gàtt ci sax ma leeral waaye faaw ma yaatal tuuti ndax bis yombul te nit boo ko nawloo doo ko xeebal bisam te nit ki nga xam ne dafa am bisam war cee mën a woo ñëw ba ceew na la mënoo cee ñàkk teew kooku boole na la ci boppam kon moom it lii mu def rek la war a def mooy mën a yëkkati tànkam ak dara jaam ak alalam ñëw fekk la fii sa biir bokk ndax loolu nga ko ji barki de moo njaay bi doomam nelawee kenn jiituwu la fa dëgg la de ñëw nga fa dox fa dox yi mu rafet te bu doon loo bëgg mu fés mënoon nga koo doxee neneen te defoo ko la cay farata rek nga def kon loolu mooy àndu xol tey ci li ma xam seen diggante yéen ñaar du tey ndax fekke naa seeni jataay ba tàyyi te boobu dara xewagul te boobaak léegi it dégg dara mosuma ne jot la nga nembet ma dara walla ma gis bis sa xar kanam luy wane na yaa ngi koy ñooru ci dara te motoon nañ fa téeméer ak nangam kon loolu ànd bu sincère la kon tey soo ko wooyee ci bis bu toll nii war na cee mën a teew ngir ak ndawlonte teew ci ngir ngeen seq ko ci diggante waajur ak doom ngeen seqaat ko ci diggante mag ak rakk ba noppaat ngeen seq ko ci ak jaxasoo yàlla dogal rek ngeen bokk la géeb suñ Tuubaa bii ren ñu dugal la ci nga bokk ci bokk ci ñi ñu jàpp ne fii nu jëm liggéey bu mag lay laaj te xam nañu ko fi àdduna tollu xam nañu ko fi nit ñi nekk xam nañu ko waaye dañuy nit boo sëñte weddi sañoo leeral te fa ngay dégg du fa la ñëpp di dégg du loo xam wax dëgg la waaye bu doon détail rek ak parti ki pexe yu koy joxe am na fi bu dee li lëndëmal askan wi ba tax ñu woote balaa bi lenn li nga xam ne jubluwuñ ko ci woon ndax su may wax ñoo ñoo tax may wax waaye ñi ko ci jublu woon am choix bi moom amuñ ci problème parce que loolu seen bëgg-bëgg la woon te ñu ko doon campagne ko dox du ñàkk nit moom mënoo am ci àddina nit ñëpp ànd ak yow jubu la nangul la def li war a def bu ñu ko doon def njiit du am bu ñëpp doon nangoo def li war a def te yem ca kenn ku ne xam la nga sañ a def nga yem kon njiit mën naa bañ am solo waaye su fekkee sëriñ bi joxe ne ndigal wax li muy wax mu ami seede jaar fi mu war a jaar mu leer ñëpp jërëtut a campagne jërëtut a wax ndax campagne sunu mbir newu ci sunu mbir ci baatub sëriñ bi la ne amutub àpp amutub dayoo fu ko sëriñ bi yemale rek fa lay yem wala fu ko àdduna yemale loolu nag baaxoo naa mbir moomu ku ko xam da nga ciy noppalu nangu naa nag ñaax ñaax mooy lii doxut tey loolu kuñ ko waxut ñi ngi lay nax ku sañoon boo xëyee jiite ay nit war ngaa xam fi nekk xam li nga leen war a defar ba di ko def man kan laa xamut li mu bëgg mooy ki dëkk ci coow te du coow lu am njëriñ te lu ñëw mu wax ca loolu kenn du ca jariñu waaye balaa caa ñaa gindi ko mu yàq ca lu bari waaye nit ki am objectif romb lii ne lii compétence commune la nit ki gis na commune bi nii muy doxee yeex na nit ki gis ne lii lu làqu la te commune bi la war defaraguñ ko nga danoose ko ba àdduna bépp jóg ndax ñu mën a jóg dem defar ko loolu lu am solo la bokkut ak nag rabaje rabaje mooy attaque mhm. te loola moom amul solo naa nag lii di ñëw ci kanam man li ma xam te yaakaar naa ne dootuma gone kenn te làmbatootuma te dëkk bi gisuma fi ku ma jaral yàq sama bopp waaye wenn way rek lañ fi war a mën a am ku ñu tudd tudd Sëñ Tuubaa mooy fexe bay dox ci ndigal te ndigal li ngay doxit nga xam fi ngay teg sa tànk ba fi nga yéenee yóbbu dëkk bi nga yegg ko loolu rek ñu war a mën a may dara ba tax na ñaan nañ yàlla ci mandat bii di ñëwaat ak lu mën a xew nit ñi moom daañ ci gis seen bopp bu wér a wér ci li ma gëm ak li ma gisagum mu tàmbali te du ma waxee bakkan ndax lu ma wax dama koy bëgg a waxaat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 tey ko faax naa foo ko teg bi ku ma war nañu foo bëggee. moom sa aji baa ngi koy jox nu ndigal fu nu koy teg. foo ko teg faax naa foo ko teg bi ku ma war nañu foo bëggee. naa foo ko teg bi ku ma war nañu foo bëggee. fii aji baa ngi jox nu ndigal. Thank you.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 fii Kër Baye laa dëkk bay Baye njaay si dëkkin bu rafet muy sama xarit lool mën a sonn si doomu aadama soxlay jàmbur moo ko gën a soxlaam saa boo ko waxee soxla feeg lijjantiw ko rek doom lu ko neex moo tax ñu bàyyi lépp barki démb ba tey ànd ak moom si xewam wii bëgg rek nu mu baaxee bëgg nu mu baaxee Kër Baye Laat gii mu dëkk daal benn baat la fi koo fi tudd Baye Moudou Ndiaye dañ naan baax lañ xam si moom ak sonn si doomu aadama moo tax bisam bi nii rek la mën a mel mënut a mel meneen li bëggoon a ñëw buñ dajewoon fii duñ xaj kër Baay Laat sax ndax jikkoom jii ak ni mu mënee sonn si doom aadama moo tax fu waay jógee bëgg a ñëw si xewam bi lu mu lu gis fii rek mérito na lu ko ëpp ndax lim lebal nit ñi la nit ñi fi mu toll nii dañuy fay bor rek ni nga def nit ñi rek la la nit ñiy def. te daa mën a sonn si doomu aadama moo tax bisam bii luñ si jàpp rek doyut suñ man ak liñ man ak liñ mënut lépp ngir bàyyi Muudu Njaay mi moo tax ñun ñu bàyyi xaritam yaa ngi nii teew Thierno Fall ngi nii Tafaaja euh, Ablaye Ndiaye ñoom ñëpp ngi to ak yi ñoom ñëpp ngi nii ku ne jàpp dépp bërk dépp bërk birki dem ba tey ni ngi si kàddu gi nag xam naa ne du bëri ndax baat bi daa xaw a dee dañoo bëri coono lool tey ndax dañoo bàyyi lépp ñëw si bis bi Baye Mouride day suñu waaye yoo xam ne fu ñu taxaw dafay taxaw fu taxaw rek dafay taxaw te nii nii sama xarit di wax Mouride Habib Gueye mën a sonn si doomu aadama xew waaye mën a am moo fay jiitu commencé ko si man mii am naa fi xew woo xam ne nii moo fa jiitu moo yeewu gan yi jëli seet ba gane la gan yëpp ba ba mu jeex ñu ànd ñu àndandoo ko muy doog dem ñibbi te keneen ak keneen ak ñëpp noonu la koy defee moo tax wax ji du bëri waaye ñu ngi koy sant di ko gërëm te xam ne lu mu am rek. moo ko liggéey. nuyu nag mbooloom ñi nga xam ne si ni jii ñoo teew fii ci jotaay bi ci kër gi euh, xam naa ne mën na su lim nag moom waaye daal sant nan ñëpp rek gërëm nan ñëpp njabootu Serigne Fallou gi nag ñoo ci jiitu di Serigne ci booba Serigne Mouhamadou Lamine Baara Mbacke moom Serigne Abdou Fatah Mbacke euh, Serigne Mamour Mbacke Serigne Bassirou Mbacke euh, Serigne Cheikh Na Mbacke ak Serigne Saliou Mbacke Serigne Alhaji Baara Mbacke. ñoo ngi leen di ñoom ñëpp di leen siyaare bu baax a baax waaye di nuyu tamit sëriñ Modou Abdoulaye Mbacke moom sëriñ Modou Faty Khary soxna Aji Mbacke moom sëriñ Modou Xabaan ak soxna Ami Mbacke mi nga xam ne si boobu ba léegi ñu fi ak soxna Maawa Mbacke moom sëriñ Modou Bousso Dieng ñoom ñëpp fi leen yenn ñu ngi ci biir kër gi di eh, kon ñoo ngi leen nuyu ñëpp di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di sant ñi fi teew ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwun kenn bàyyiwun kenn ñoo ngi sant ñëpp teewaay bi rafet na lool di sant nag sama gars yi nga xam ne si ñoom ñëpp bàyyi nañ seen i yitte yëpp depuis bërki démb ba léegi ñu ànd ko ba xewi tey ji jag waaw moom mënee su leen a lim xanaa dama ci jukkee ñeen rek ñeen ñu yóbbaale ñeen ñi waaye ñoo ngi seen sant bu baax di leen sant di gërëm di sant euh, Habib Gueye mii nga xam ne si ni mi ngi nii comme ni mu ko waxee léegi ci interview bi maanaam bërkat bërkat démb ba léegi amut amut amut fenn soxla mi ngi ci yëf yi wax dëgg am jàpp ci bu baax a baax a baax ci alalam jàpp ci ci dooleem jàpp ci léppam kenn mënu ko fay di sant Thierno Fall mii bërki démb ba tey ñoom tamit ñoo ngi ko ànd Ablaye Ndiaye ngi nii xam ngeen heure bi guddi na ndax gée jot na waaye ñoom ñëpp kenn demul fenn Tafa Dia ngi nii ñun ñëpp ñu ànd ko di sant Baye Galas Bey tamit hmm, di sama jarbaat ak Cheikh Abdou Dieng ñoom ñoom ñëpp ñoo ngi leen sant Xaadim Bey démb ba tey ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi euh, jàpp ci bis bi ba bis bi tey jii mën a yéwén sëriñ moo Diop mi nga xam ne si sama jaam la xëy na ko sant sama jaam la waaye moom it mi ngi noonu di beral cant mi nag wax dëgg yàlla sama lawbe maxtaar weñ nga xam ne si daa dikk féetee ci kër gi boobu ba léegi mi ngi ci mi ngi mi ngi fi yor liggéey bépp mook sëriñ loo wax dëgg yàlla ñoo ngi leen sant bu baax a baax def fexe nañ ba bis bi yëpp jag ñu ngi sant sama gaay yëpp waaw ñoom Mor Saw ak ñoom Mor Talla Diouf ak ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm waaw di sant honorable député Abdoulahat Seck di sant monsieur le maire Abdoulahat Ka ndax moom it teew na teewaay bu rafet moo Abdoulaye Seck Sadaga waaye di sant tamit Alaaji Ndiaye programme action au maire di sant ñëpp di leen gërëm xam naa ne ñi fi teew ñëpp mëne su leen a lim waaye ñoo ngi leen sant daal di leen gërëm di sant ñëpp sant Khadim Diop moom tamit responsable politique la di sama xarit Maam Dame ñi nga xam ne si ni Mourtala Diaw moom Sëñ Thierno Diaw ñoom ñëpp ñëpp dañ yendu demuñu fenn ba tey jii ñi ngi fi ñoom ñëpp ñoo ngi leen sant di leen gërëm sant nañ leen baax gërëm nañ leen kontaan nañ amuñu seen fay ñoo ngi sant soxna Amine Mbacke sëñ Modou Xaban di sant di sant di sant ñëpp bàyyiwun kenn daal ñoo ngi sant sama ñi nga xam ne si nag ñoom laa bokkal Baye muy Baye Galas Ndiaye ak Abo Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi fi di sant nag Ndeye Awa mi nga xam ne si ni mooy sama mag ma tuddee ko doom ma tuddee ko xale bi ni doon ngénte tey jii ñoo ngi koy sant mooy sunu mag euh, moom moom cër bi di sant ma Awa Ndiaye mi nga xam ne si tamit moom it am na cër fii ci kër gi am na fi trondoo maa ngi koy sant moom it di sama rakk ñun ñëpp ñu bokk Baye ñoom leen sant am na fu mu tàmbali amul yam ndax ñoom ñëpp rafetal nañ bis bi ñoo tax bis bi jagee nii bu doon man képp bis bi du mel ni mu mel waaw maa ngi leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm waaw bàyyiwun kenn ñëpp daal ñoo ngi leen sant sant nañ leen gërëm nañ leen man bu ma xewlee ñëpp dañuy bàyyi li ñuy def rek dikk nekk ak man te wax dëgg yàlla man xam naa ne jiwuma leen ko waaye daal wax dëgg yàlla am daal euh, yàlla sunu borom mi xar si moo tax ñuy fay ak sofeel gi yàlla yàlla sunu borom téel ànd bi bi jaay Seydina Mohamed ba seytaane bañ cee dugg kenn ku ci nekk tamit la nga li may li ñu yéenante suñu biir kenn ku ne yàlla suñu borom jox la loo ko sottalee ñoo ngi leen sant baax di leen gërëm